Touba Bogo ci daaray Serigne Cheikh Thiolé moom Serigne Abdou Karim moom sëriñ Fallou lu mat fukki fan ak juróom a ngi nii daara ja day tàkk loolu kat nekk loo xam ne nii mbir mu doy waar la buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne nii bàyyikoo na ci jëwriñ yee ko fekkee deneen kat lu mat fukki fan ak juróom a ngi nii lii di daara ji saa suñ ko fayee tàkk-tàkk bi day tàmbaliwaat foofe ca tubaab Bogo loolu tax na nag lu ëpp ca seeni dëkkuwaay lu ci mel ni néeg yi ak lu tollook juróomi million ci valeuru ngooñ moo xam ne ni bayoon nañ ko lépp daal dina dem ci tàkk-tàkk lile Serigne Mame Mbaye Ndiaye di jëwriñ ja nga xam ne moo féete ca daara ja moo ciy gën a indi ay leeral. toll ci fukki néeg daal lakk na fi ci xayma dara génn ci nag du yére du dàll du dara. matériel bi fi yàqu daal bari na lool ba mëneesu koo xayma ngooñ mi it ci gàttal buñ ko doon xayma juróom million ku ma ko ci fayoon damay lànk lépp lakk na dara génnu ci gi daal xam naa ne six heures demi daal ay sept heures demi ci ngoon gi la commencé vingt quatre heures def na ko waaw di tàgg te ba nii sax fay sa pour ñëw na fay waaye ba léegi daal fay bi demee ko noonu ndax ngooñ mi bari gum bari non sa pour mu wax dëgg yàlla ñëw moom xaw na retard waaw yeex na ñëw lool waaw ñun daal ñoo ci góor góorgóorlu ba dem ba sonn nag ba tële ñu far toog rek jàpp ci yàlla féete yàlla. waaw daar ji moom wax lakk gi moom bii mooy juróomi yoon waaw bii mooy juróomi yoon ci gàttal. waaw waaw fukki nekk waaw yoo xam ne dara génn ci waaw par une heure ci bëccëg la taal ak ginnaaw timis loxoy koy taal moom. waaw ñett lakk yi moom ci 15 jours yi la ko def 15 jours waaw ci la ko def. ginnaaw tàkk-tàkk bi mu méttee foofee ca daara ja buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci jëwriñ lu mat waxtu ak morom ga maanaam bés boo xam ne nii bi ngooñ mi commencé ak tàkk toll ci waxtu ak moroom ja woo nañu ñii di sapeur pompier. waaye ñëwuñu benn yoon loolu nag ginnaaw bi mu ko leeralee moom mii di jëwriñ ji ak kilifa yi nga xam ne ni ñoo fare foofee ca Touba Bogo di daaray Serigne Cheikh Thiolé ñoom kat ñaawlu nañu càggante gi nga xam ne nii feeñ na ci feegu lakk gi lee ah bi ñu lakkam gi amee nag eh, ñëw nañu fii maag Serigne bi ak sëñ Abibu moom Cheikh faadal bi biñ fi ñëwee ci heure ngoon lañ fi ñëw lakk gi dépassé na vingt-quatre heures yoo xam ne lakk gi fay ci la sëñ Habibou moom Cheikh Modou Fadal ñëwee fii ànd ak man ak Serigne Cheikh bi nu ñëwee fii sëñ bu xool yëf yi ni mu demee ne lii daal deesu ko bàyyi nii ci la commencé nag di woote di woote di woote ba jot fi ñu war a jot yëpp ci la sappoor yi doog a ñëw bi nu ñëwee it ñëw nañu fii waaye ñoom day defuñu seen liggéey ndax sëriñ bi ci boppam amul amul euh, gërëmu leen sëriñ bi mer na lool bi fiy ñëw ndax wax dëgg yàlla kilifa taxaw 24 heures mu di la woo nga naan ko maa ngi ñëw maa ngi ñëw. te dara amu ci bi ñu ñëwee ci suñu kanam te ñëw gi it li ko waral mooy sëñ Abibu moo ñëw xam ne lii kat jaaduwul mu mu woote fa mu war a woote ci lañ ñëwee bi nu ñëwee it defuñu fi dara daanaka ndax lañ fi lañ fiy fay fekk na lakk gi jàll na bu yàgg yàgg ñoom ñu doog fee ñëw di fay kon fay amu fi kon nag ñoo ngi laa sa appel di wax ñëpp ne. Euh, sapeur pompier bi fi ñëwoon daal ñoom defuñu seen liggéey ndax li li li sëriñ bi woo na leen ba tàyyi waaye defuñu seen liggéey loolu nag sëriñ bi moo ñu ko wax loo ñoo ngi koy jot li ñëpp ñu xam loolu kon nag liñ ciy teg mooy eh, mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñun ñëpp ñi nga xam ne si kii mooy sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Karim taawam di euh, baayam di taawam Cheikh Modou Fadal moo mag ci eh, doomi sëñ fàllu yëpp sëñ Cheikh mi it moo mag ci doom sëti sëñ fàl yëpp kon fii di fi liggéeyal yàlla di fi jaamu yàlla am fi ay dongo yoo xam ne da leen fee bàyyi ñuy jàng alxuraan am fi dongo yoo xam ne dañ fee ñëw di tarbiyewu di liggéeyal yàlla lim fiy liggéey yëpp it ci yàlla lu koy delloo ndax ñun ñi ay taalibeem lañ te mësuñoo wax lenn loo xam ne indi ma defal leen lu dul def ci yàlla kon nag loolu ñoo ngi ko ciy sant bu baax a baax di ko gërëm di ñaan it yàlla yemale ko fii di ñaan it yàlla mboolem li nga xam ne si doomu aadama bëgg na ko cee def yal na la yàlla may ba nga mën ko cee def ci barkib Cheikh Modou Fadal ñu ngi tàllal loxo ñëpp di tax sëriñ bi nag buy wax ngir sapeur pompier sëriñ bi waxul ngir moom de dafa xam ne moom mm, njiit la. te day waxal ñëpp ndax yàqule gii mu yàqule métti ko de ndax koo xam ne yow rayukaay nga wax yàqule gii du ko métti kon day wax rek ngir en cas ëllëg bu lu mel lu mel ni amee feneen ñooñu mën ci taxaw taxaw ci war taxaw gan ci war a taxaw waaye du mbirum sëriñ bi de sëriñ bi nañ xam ne moom te yàqule gii mu yàqule métti ko de métti ko de wallaahi azim métti wu ko man mi ko xam yi di yàgg ak moom dox ak moom lu mat juróom fukki at xam naa xam naa kan mooy sëñ kon loolu métti ko waaye day wax rek ngir ëllëg lu mel nii mu bañatee am ñun daal ñoo ngi lancé appel mboolem koo xam ne yaa ngi dégg suñu wax daal nga xam ne sëriñ bii daal lii nii méttiwu ko waaye day waxal askan bi yëpp ba bu ëllëgee si lu mel nii fu mu mën a xeweti bu ëllëgee des na ca mën a taxaw loolu daal la amoon lu ñu leen ciy wax buñ sukkandikoo ci kàddooy ñi nga xam ne ni ñoo fa fare njortu na ne kat tàkk-tàkk bi kat mu ngi bàyyeekoo ci jinne ci loolu sax am na kenn ci dongo yoo xamante ni mel na ni mbir mi feeñu na ko ba jamono yi nekk na ci àngalamte nekk nag natt boo xam ne nii lu mat fukki fan ak juróom gane na daaraay kenn ci njabootuk Cheikh Mouhamadou Fadal di ay sëtam mën nañ ne ak jamono yi moom Serigne Cheikh Thiolé moomu moom mag ci sëti Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke pour sukkandikoo sax ci yeneen xibaar yi nga xam ne nii bàyyeekoo na ci mbir mi kat tey jii ci ngoon gi ci la la fa desoon daal di lakk ñu fàttali rek ne mu ngi nekk daara ji ci fàttali rek daara ji mu nga nekk ca Touba Bogo fukki fan ak juróom a ngi nii ma ngay lakk lépp lu fa dongo ya amoon jeex na tàkk ñenn ci ña fa fekkee nag njort nañ ne lii kat jinne moo ko def.